di ku yàgg a taxawu ay ne ci mbaaxuk yàlla ci wàllum ñaan dangaa am ay jafe-jafe ci wàllum këyit moo xam yaa ngi ci biir réew mi wala yaa ngi bitim réew dangaa bëgg sa bunti sa gën a gaaw a ubbiku dangaa bëgg bayrab njaay wala bayrab jigéen dangaa tëju cat dala sonal ndax lii ngay bëgg a dugg moo gën ci yow waaw wala déet sëriñ Ahmadou Mbacke borom def gis dalay defal liste listixaar wax la ni ngay def dangaa bëgg kaaraange ci sa bopp mbaali la wër dangaa bëgg ku la jiboole ki nga nekkal dangay xëccu ay sànce wala ay marché sa yaakaar day faral di tas wala dangaa am yitte joo munta wax kenn ak lu mu mën a doon gaawal a gaaw jokkoo ak sëriñ Ahmadou Mbacke borom def gis ci mbaaxuk yàlla sa aaju dina faj yàlla baaxee na ko mu yore ay jaaro yu gaaw ci li nga bëgg ak ay ndombo ci wàllum bayre wala sax tul gisee ak moom rek sa aajo faju daw leen gaaw gisee ak moom samedi ba mardi mën ngeen ko fekk dakaar Patte mercredi ba vendredi mën ngeen koo fekk fii ci Touba Darou Khoudoss wala sax ngeen jokkoo ak moom ci 77 690 82 74 77 690 82 74 yittey Serigne Ahmadou Mbacke borom def kiis moo di tàggale leen ak seeni njàqare dalal seeni xel. jërëjëfaat Serigne saaliw mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare euh, di leen nuyoo nag ci kàddu soxna Aida Saliou moom Serigne Béthio mu ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh mu taxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Saliou mu yàgg fi lool moom it te ànd ak wér buntam ci sëriñ Saliou mu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp te di leen yëgal ni kàddu yi dafay sori waaye su fi nekkoon. mooy jàkkaarloog taalibe yi waxal leen ko boppam kàddu yi nag weesuwul ndigal li nga xam ne moom la Serigne Mountakha digle ci màggal gi nee na mi ngi koy yeesalaat ci mbooleem kum àndal te di la wax lépp loo xam ne Serigne bi digle na ko mi ngi koy yeesalaat ci taalibe yi tey digal ñëpp ñu tënku ci waaye lépp loo xam ne Serigne bi tere na ko nee na mu ngi koy fàttaliwaat taalibe yëpp tey ñaan ñëpp. wattandiku loola te sori loolu te di yëgal ñëpp ni moom de ci li mu ne mooy ci li nga xam ne moom la sëñ mun Muntaxa digle ci ñu tërale ko màggal gi fas yéene wu cee yokk dara te fas yéene wu cee wàññi it dara ngir dëppale ko ndigalu sëriñ bi ak bëgg-bëggu sëriñ bi loola nag bokk na ca mooy col colin bi mooy colin gi foofu ci dëkk bi ndax naka jekk loolu moom ndigal la loo xam ni du puus te du randu kon mi ngi yeesalaat ndigal loolu waaye bokk na ci nag li nga xam ni moo ci spécial muy màggal gii ñu nekk ak contexte bii ñu nekk loola nag dafa tax ay ndigal yu yees wàccaat lu mel ni di takk masque foo waaye lu mel ni distance distanciation yi muy di soriante lu mel ni benn rassemblement muy mbooloo ndax contexte bii ñu nekk permettre lool kon nee na mi ngi fàttali mbooleem mbokki taalibe yi ndigal loolee waaye bokk na ci it lépp loo xam ne tere na ko rek nee na tere yi moom ku ne xam na ko lépp lu tere rek nañu ko wattandiku te xam ni moom day moom soxna Aida Saliou ci loolu la ne li ci des nag moo di màggal gi kat ci lii la tëggu mooy di rendi tey bernde waaye njàngum alxuraan mi nee na mi ngi yeesalaat loolu ci taalibe yi ñu gën koo fanoo te gën cee nekk naka jekk nag njàngum xaside yi yi nga xam ni ci lañ mës ne nee na mi ngi yeesalaat loola te di ko digalaat taalibe yi te ñu gën ci sóobu te gën cee nekk tey rendi tey bernde ni ko Serigne Touba digle nee na loolu yi lépp nag bu nu ko dajee def ko ñi ngi koy dëppaleeg nag ni ko Serigne bi bëggee te loolu kat moo di taalube ba tax na mu ngi yeesalaat loolu dafay sori waaye bu fi nekkoon moo koy waxal boppam kon nee na taalube yi bëgg na kenn ku ci nekk nga digg kàddu gi te gën cee nekk te xam ne moom day soxna Aida nee na moom ci loolu la ne li sëriñ bi digle ci la ne li sëriñ bi tere te di ko wattandiku wattandikuloo képp koo xam ne rek yaa ngi déglu kàddoom